si man si maire bi laa liggéey DG damay nettoyé canal bi chaque jour. démb nag ma xëccee ne si suuf pont si laa génne benn mbuus yëkkate ko def ko si bureau bi ba ma yëkkatee fourchette bi si laa gis benn boutique bu àndaale te li mu si fourchette bi si cotu fourchette bi nit bi lii lan si laa ko gisee nit bi si laa ko tegee ne si fourchette bi si lii si bureau si la waa oto mbali bi ñëw si lañ koy waa Sarko. yow bi koy gis mu ngi dund wala. moom dundu woon de. bu ma ko gisee dëgër moom moom du ndaw la nag. Ah.